sënaaru gën ya faaf yaay eh. ay cadre administratif ay marin ay ouvrier naka noonuy technicien toll nañ ci ñeent fukk ak ñetti nit ñoo xam ni jël nañ seenu retraite ca port autonome bu ndakaaru ginnaaw at yu bari yu ñu liggéey la ñu fas yéene moo di dem bàyyee place yile yeneen génération tete ngeen ñu jaar ngeen ak ñun fi ñu war a jaar may wax ni ñi fi ñëw démb ak ñi fi teew ne ak ñi fi nekkoon lañ jàpp ni ñëpp benn la parce que yàlla moo ñu boole ñu bokk benn teen bu ñuy rootee li ci des nag mooy ñu jàkkaarloo gi wax ak yow loo xamante ne suñu xol la ne. directeur général bu port autonome bu Ndakaaru fas yéene leen gunge ci seen dund bu bees bi lee moom Mountaga Sy di xamle ni dana gën a dëgëral lay baax baaxu retraité yu port boobee. daje bi bés la bi ñu jegleel euh, suñu ay retraité ñoo xam dañu fi liggéey ba war a dem seeni i ci loolu dañu saytu naka la ñu war a mën a continuer. di porter soutien jàppale suñu ay ñoo xam ne ñooy suñu ay mag ñoo fii liggéey ba am seen i retraite ñoo formé nit ñi ñoo leen di accompagner. président du conseil d' administration bu port autonome bu Ndakaaru itam daal di sasu ci loolee moom Moussa Sy di xam xamle ni dana ca dugal yoxoom ñoo am daanaka expérience bu takku lool retraité yi lee daal di leen leen décorer ñu fas yéene wéy dindi seen xalaat ci liy jëmal kanam port autonome bu Ndakaaru.